ci seen euh, programme al académia seen jataay biñ baaxoo seq ak yéen di ci leeral téereb Sëriñ tubaab bi ñuy wooye nox ñu xadail xaaj seen mbokk Mouhamadou Mourtada Mbacké Abdoul Baaxi mi ngi def si di leen nuyu di am yéen leen nuyu leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di am yéen kon yeesalaat jataay euh, wéy wéel ak yéen jataayu euh, leeral bi ñuy def jëmale ko ci téereb sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom la taalif tudde ko nax ñu xadaayil xaaj mi jëm ci wàllu mi jëm ci wàllu teggi xam ngeen ne ñi ngi war a tàmbalee tey kon fii sëriñ Tuubaa di waxee radiyallaahu anhu bismillaahi rahmaani rahiim nee na wa in sami'ta maanaam kon mi ngi war a jëm ak yow ci euh, teggin yi nga xam ne moom nga war a àndeek ki nga xam ne moo mag euh, euh, teggin yi nga xam ne moom nga war a àndeek koo xam ne moo la mag ak kenn ku nekk itam ni nga war a waxee moom booy wax ak moom ngir euh, am ay teggin yoo xam ne ñëpp nga koy àndeel mu ne wa in sami'ta boo déggee man koo xam ne yakunu dana nekk ak min ka di gën mag min ka ci yow maanaam di la gën a mag euh, yu xaawil muy jéem jéem gi nag ñu ngi ci jublu sàkku rek zamanan ci jamono wataran ab ajo kan yaruma mel ni muy sàkku mursalan ku ñu yónni li xaajatin ci aajo ji kon fajal lahu ñeel ko lillaahi ngir yàlla tilkal xaaja jooje ajo nee na saa boo déggee ku la mag mu am aajo ju muy jéem a faj mel na nga dégg ko mu muy naan su ma amoon ku ma yónni mu defal li ma aajo sàngam nee na soo déggee muy wax lu mel noonu na nga ko fajal aajo jooj ci saa si ngir yàlla ndax loolu eh, day day dellu rek ci eh, ku la mag nga jox ko cir ngir mag gim la mag ndax soo ko joxee cër mu yërëm la sopp la nangu laa dimbali eh, lim la tane mu dimbalee la ko kon loolu ak defar lay jur ci sa dundi nag moom te itam loolu mooy yoon wi nga xam ne moom la yonante bi sallallahu alayhi wa ngir ak ak ak sax ñeel xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne walaa yarum bu mu sàkku min ci yow la yaadan dara ah arimun kenn illa fa'altahu ndare nga def ko tukkuram des na la terale bisaare ki ci loolu mu ne bu kenn sàkku ci yaw lenn loo xam ne mën nga ko te defoo ko lépp lu waay sàkku ci yow te man mën ko rek na ko defal ngir yàlla wala taqul te bul wax li ahdin yel kenn fen nga aw xulta xeyra alxaqi wala wax nga lu dul dëgg aw axtata wala juum nga aw xeyraha wala lu dul lu dul ñoom min kulli cheyin ci mépp mbir yusqitu moom day merloo walaw kaana ak donte nekk na sabiyan di ndaw fa boog ndax moom xaalatun njumte la moom wax jooju mu ne bul wax ak kenn ba naan ko waxoo dëgg fen nga wala nga naan ko waxoo dëgg wala nga ko juum nga nit wax dara nga naan wax nga di ko tontu nañ ko fen nga wala nga naan ko waxoo dëgg wala nga naan ko juum nga nee na loolu yëpp bu ci wax kenn dara bul bul ko wax kenn nee tam bul wax kenn loo xam ne da koy merloo donte sax gone la sax bul ko wax lu koy merloo wala nga naan ko waxoo dëgg wala jum ko ndax waxin la woo xam ne jubut waxin waxinu juum la woo xam ne jubut li jub daal mooy li mu la bëgg a wax wa in takallama bu waxee bi ma ci loo xam ne lam xamoo ko nee na bu fekkee ne ki ngay waxal wax na loo xam ne yow xamoo ko maanaam ak ak nekkam dëgg leerul la wala amoo ci xam-xam fa saddiqhu kon dëggal ko fii ci moom wax jooju takkoon kon da nga nekk zaakaram di boromu tedd nga di boromu tedd faqul kon waxal las ñel ko lastu kazaaka lastu déet man kazaaka niki noonu kuntu laa nekkoon moo taxidan di aji fas am na téere yi nag dañoo bind lastu kaza aw kuntu moo taxidan waaye boo wàccee ci suuf lim bind ci saraa bi mooy lastu kazaaka kuntu moo taxidan te mooy maanaam mi gën a jubtam kon dañuy bu ñu firi dañuy wax ne faqul waxal lahu ñel ko lastu kazaaka lastu déet man kazaaka ni ki noonu kuntu laa nekkoon moo tax la ndey ji fas maanaam li ma fasoo nag loolu daal li ma jàppoo nag li nga wax bokkut waaw aw inna ni wala naka man jahitu réer naa ko wala nga ne ko loolu nga wax de am ma ci xam-xam mooy xam ma ci lu bari wa nahwa haza ak lu niroog lii min ibaaratin ci ay waxiin yoo xam ne tasuru danañ bégloo mustahsanatin yu deeñ lu nee na wala boo ko waxul loolu tam nga seet yeneen xeeti waxin yoo xam ne boo ko waxee doo dan dana ci bég te day tey itam du doon ay fen waaw mel ne bu waxee loo xam ne amoo ci xam-xam nga ne ko loolu de yéeme la wala nga ne ko moom kay kimaan la wala yu mel noonu waaw laatu si bul ñaawal wala ta dur te bul lor nee na bul wax kenn ci say bul wax kenn wax joo xam ne danga ko ci day da ngay ñaawal ci moom maanaam ak ñaawal lay doon maanaam day jëf ju ñaaw lay ñaaw ak ñaawal mooy doxalin wu ñaaw lay doon wu jëm ci moom ne asa ilay ñaawal na jëm ci moom mooy wax na wax ju ñaaw jëm ci moom wala mu def jëf jëf ju ñaaw jëmale ko ci moom kon laatu si bul ñaawal wala du tebul lor mu ñëw nag ci teggin yi nga xam ne moom nga war a sàmmonteel ci sa wàlli ci sa làmmiñ maanaam teggini aadaabul kalaam maanaam teggini wax am na lu mu ci jot a tudd léegi waaye moom lay uh, wéyal mu ne waa amit miinalal al lisaana làmmiñ wa qawlal xayri uh, waxi yiw tafus kon danga nga texe bii ci moom watuk fate des na la fegal kulla dayri wépp lor li xawli saydil waraa ngir waxi sangu mbindeef yi man kaana ku nekk dafa tàmbali addis bi waaye dana ko àggale ci kanam sala yàlla na xéewal alay ci moom rabbuhu borom idmaanan ci saxal ngir wax gi nga xam ne moom la sangu mbindeef yi wax ne man kaana ku nekk yuminu di gëm billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir na wax aw yiw aw walla na noppi sëriñ bi daf lay digal wax la ne la salaamiñ wi danga war foo toll di ko tàmmal di ko miinal di wax lu baax ndax wax ak noppi doo nga fi nekk danga war a seet la am njariñ nga wax ko boo gisul loo xam ne am na njariñ nag nga noppi di xalaat lu baax walla ngay jëf-jëf ju baax moo tax mooy la miinal islaam yi wax yiw kon da nga texe bii ci moom yiw bi maanaam danga am da nga ci waxi yiw jooju wala da ko am mujj wax yiw rek ngay tàmm am ci araab bu ñu ne phase bi kesaa texe na ci nangam bi day yor maanaam naa lahu am na ko kon miinala salaamiñ wa wax yiw kon da nga texee ci wax yiw bi ma da danga am wax yiw danga nga da nga mujj wax yiw rek ngay ngay wax maanaam moom mu mën a nekk la mën naa am itam beneen maanaa te mooy tafus bi maanaam da nga ci texe mooy da nga ci amee ak texe dana nekk sababus sag texe moom wax yiw jooju kon na nga miinal di wax yiw ngir su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku nekk di gëm man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut ku nekk di gëm yàlla ak bis mujj bi na wax aw yiw wala mu noppi juñoon naa la maanaam moomu léegi ne la wax ak noppi doo nga nekk fii ci àdduna kuñ fekkul ngay wax rek yaa nga noppi na nga nag ba sooy wax nga tànn li gën a baax li nga xam ne buñ la ci xisaab yomal xiyaam da lay jural aw yiw la jural ay lor nga di ko wax soo noppee gis lu mel noonu nag nga noppi di xalaat lu baax wala ngay jëf lu baax yaani dana itteel anna min al aadaabil xasana ne bokk na ci teggin yi rafet an tuddima nga saxal xadaa xaajati man faj aaje koo xam ne huwa moom akbaru minka moo gën a mag ci yow isa samitahu ndem dégg nga ko yatlubuhu mu di ko sàkku kaan yatluba mel ne muy sàkku moom man koo xam ne yursilu da koy yónni fii xaajatin ci ab aajo nee na bokk lim la xam ko mooy bokk na teggin yi rafet nga fexe ba fa toll di faj aaje koo xam ne moo la mag soo ko déggee mu muy sàkku ko ko fajal mi mel ne nga dégg ko muy wut kum yónni ngir mu fajal ko benn aajo nee na su boobaa nanga nga ko wax ne ko indi ma dem doxali la ko loolu ci ay teggin la bokk wa min bokk na ci ñoom teggin ñi an laa yatluba mu bañ a sàkku min ko ci yow ahadun kenn shay'an dara illa fa'altahu ndare nga def ko bokk na ci teggin tam lu waaye sàkku ci te nga mën ko rek bul ko wax déedéet mukk maanaam nga bañ a bari lu looy wax déedéet ci sa làmmiñ wala mënuma ko wala yu mel noonu saa bu la nit ki ci yow loo xam ne mën nga ko nanga ko def su fekkee doo ko man léegi tam te nga xalaat ne danga ko mën waxtu sàngam na nga ko joxub dig ne ko am naa yaakaar ne waxtu sàngam di boo ñëwee dana mën a ne wala nga tontu ko loo xam ne du nekk luy tas yaakaaram waaw te bañ doon ay fentam wa minha bokk na ci ñoom teggi nii an laa yatluba mu bañ ah, wa an laa taqul an nga bañ a wax li ahdi ñeen kenn kazabta fen nga wala qulta di jageen wax nga xeyra xaqin lu dul dëgg wala kalimatun du caagin ab baat tusxituhu boobu da koy merloo wa in kaana ak dont nekk na asxara di gën a ndaw min ko ci yow loolu waxoon naa ko ci way wi léegi maanaam yi jàpp naa ne leer na ci yow ngir waxoon nañ ko fee kon jërut ñuy dëppaat di wax maanaam wa in xaala wa kaana asxara min ak dont dafa nekk di la di gën a ndaw ci yow maanaam di di di la gën ndaw wa in xaala ndem wax na maa loo xam ne lam taalam xamoo ko fa saddiqu fii kon dëggal ko ci nee su waxee loo xam ne xamoo ko tam na nga ko wax ne ko wax nga dëgg rek waaw ndax comme yow amoo ci xam-xam da rafet njort rek jàpp ne dëgg la ndax rafet njort moom la suñu borom santaane ci alquran karim ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ijtanibu kasiran min azanni waaw bu nit waxee loo xam ne amoo ci xam-xam da ngay jàpp ne ab jullit la rek li mu wax dëgg la nga daan ne ko wax nga dëgg ab jullit dëgg rek lay wax faxul kon waxal lastu kazalika lastu déen man kazalika nekk noonu kuntu laa nekkoon entaxut di fas jàpp woon loolu jàppewu ma ko woon noonu bu waxee dara ci misaal euh, dara dina ngeen dugg ci benn waxtaan di wax ba mu wax loo xam ne xëy na bokkut ak ni nga jàppe nga ne ko man daa mel ni sax jàppewu ko li ma jàppoon xaw naa wuteeg loolu aw wala laa alam saanika xam ma loolu nga ne ko laa man loolu daa mel ni taxul ma am xam ci lu bari loolu moo gën a rafet nga naan ko waxu dëgg wala nga fen nga wala nga naan ko juum nga wanaa wa haza ak lu niroog lii min al ibaraat al xasana ci waxin yu rafet waaw num wala boo waxut loolu mu la wax tam nga seen wax yi ñu rafet nga wax ko ndax nit ki moom su waxee même bu dul dëgg tam euh, tontu ko rek loo xam ne dana dana mën naa jàpp ne yow gëm nga li nga wax te du ci mer waaw ñu la waxuñ la nag nga di ko wax loo xam ne ay fen lay doon waaye tontu ko tonti waxin yu rafet daal yoo xam ne dana ko bégloo te itam ay fen du ci nekk su boobaa jàmm rek mooy dox seen diggante ngeen mën a continuer di dimbalante ci lu baax moo gën nga wax ko loo xam da koy mer loo wala mu loo xam dana jaax doxi jàppe la am noon wala yu mel noonu te su boobaa dimbalante gi war sa diggante ak moom dootu waaw it mi na lan lisaanaka sa làmmiñ an taqula xayran ngay wax aw yiw fa qaala ndax wax na sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla xéewale ci moom te musal ko <clears throat> wax na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man kaana ku nekk yuminu diggam billaahi yàlla wal yawmil aaxir ak bis mujj bi fal yaqul xayran nay wax aw yiw aw wala li yasbut na waqaala te wax na baax baadu chonra leen ci waykat yi ñi way mooy ñi nga xam dañuy yëg ay yëg-yëg di ko wax di ko di ko daaj wax na ne awit lisaanaka qawla al xayri tuxza bihi inna lisaana lima awata yataadu nee na miinal aslaamin wax aw yu kon dees na la ko cëral mooy lama ma la waxoon fee rek tafus bihi jooju mi yor maanaam tuxza bihi dees na la da ko da ko gañe maanaam mooy da nga ko am moom yiw wa da nga am aw yiw di ko wax foo toll danga mujj wax aw yiw rek mooy doon sab cër des na la cëral bii ci moom wax yiw wi nga xam ne foo toll daal wax aw yiw rek ngay man ci kaw boo ko miinale sa laamiñ inna lisaana naka laamiñ yaata dama dana baaxoo li ma ñeel la nga xam ne awata miinal nga ko nee li nga ko miinal dong lay baaxoo fi ne loo taam wax sa laamiñ buñ li yeewoon ci nelaw sax mën ngaa jékki-jékki wax ko te doo ko tey ndax li nga ko taam wax kon nag dangay tànn lu baax di ko wax ndax lu baax rek moo lay jural njariñ ci àdduna ak alaaxira mu ne fikkul seen ci mépp mbir taata moom làmmiñ miin na maa li nga xam ne sananta xam nga taata mi ngi jóge ci ba ci baatub anta bi firi jox kon jël na le nga koy firee waaye dañuy dañ leen dañ ko firee miin na waaye jël jël na mooy firi bi taata jël na maa li nga xam ne sananta mi yoonal nga ko loo ñeel ko maanaam tataata lañ bëgg a wax benn taa bi dañ ko asaf ngir bu dee ci naxu bu ñaari taa ñëwee benn benn boo dee loolu wàllu naxu la xam na day guddal waaye jàppal ne te taata la la woon daal te taata dana jël moom làmmiñ maa ni nga xam ne sanante yi la woo yoonal nga ko nee na làmmiñ yoon woo ko ci yoon mbir mu nekk yoon ma nga ko jaarale rek moom lay jël def ko aw yoonam fil xayri wa char ci yiw ak aw ay waaw nee yiw ak ay làmmiñ mbir mu nekk maanaam masala maanaam sa dund gi ngay dund mbir mu nekk ci mbiri dund gi wax yan cay wax benn mu nekk wax yiw wala waxi ay yow nag sa làmmiñ ñaari ñaar yooyu boo ca tànn di ko ca jaarale rek yoon woowu lay jël di ci jaar waaw boo dee wax ak sa soxna wala ngay wax ak sa doom wala ngay wax ak sa eh, sa mag wala sa rak wala koo ci mbedd mi wala ngay wax ci benn masala nee na xeeti wax yooyu yëpp ak wax yu dut yooyu nee na yoonu yiw rek moo ci nekk ak yoonu ay boo tànnee yoonu yiw di wax wax yiw sa sa làmmiñ jël yoon woowa di ko jël di ko di ko wax ba mujj day mujj dootu ko mën a tee bàyyi mu dee yoonu ay wa nga tànn itam noonu kon nag fan sur mu ne kon xoolal kay fa tas daan nag ngay dolli ko nee na kon nag na nga xool nag naka ngay dolli ko mooy naka ngay defe loo xam ne da nga ci yokki aw yiw waaw ci sa dunduk àdduna ak yiw sa dunduk àlaxira kon dafa mel ne loolu mm, mooy liñ jëloon tey jagleel ko jataay bi nga xam ne moom lañ jagleen Euh, di ci leeral téereb sëriñ tubaab bi nga xam ne mooy nahju qadaa'il xaaj muy yoonu pajuk aajo euh, maanaam aajo yi nga xam ne nit ñi lañ ko am ci wàllu teggin yoon wi nga xam ne ku ci jaar da nga mën a am mbooleem luy ay teggin yooyu àndeek ak sa borom ak yooyu mu ànd ak sa moroom yi mbindeef gis ngeen ni mu ko jëlee par ay xaaj teggin yi ngay àndeek sa yi ngay yi ngay àndeek sa sa mag ak yi ngay àndeek euh, yi ngay jëfandikoo ci sa wàllu wax ak yeneen yeneen yoo xam ne mbooleem daal lu nit ki di dund ci àdduna rek gi yem ca war a dundee incha allah da ngeen ko gis ci biir téere bi euh, kon euh, wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin di ñaanal mbokk yi nga xam ne nag ñooy taxawu euh, liggéey bi suñu borom doole leen a kàttanal doole leen a tawfiqal ba li ñu yéene suñu borom àggale yéene jooju te defal leen ci ak nangu ak tawfiq suñu borom gunge leen ci ba fa ci bëgg àgg suñu borom àggale leen liggéeyal mbooleem jullit ñi mbooleem murit yi liggéey boo xam ne day leen jural tax ak àdduna ak àllaaxira te suñ boroom ñoom ñu koy def itam suñ borom defal leen ci lu kawee seen njortu ci tax ak àdduna ak àllaaxira ak pajug aajo wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu